monsieur le ministre dama bëgg nga ñëw sama wet ñëpp xam ne lii ñu def tey li ñu waroon def la bu yàgg xëy na yàlla tey la ko dogal donc yàlla nag lu mu nàmm nangu rek moo ci war donc maa am mbégte tey di la dalal fii et ñu ngi bind une page de l'histoire politique de Sangalkam, ici à Kunungalam. Et je sais que l'histoire retiendra que tout a commencé ici et que le président de la République va appeler toutes les autres 555 ou 557 communes du Sénégal à s'inspirer de la commune de Sangalkam pour appliquer rigoureusement euh, euh, euh, ces, prescriptions. Nous, exceptionnel li ko waral mooy Ousseynou Diallo yàgg na ñëpp di ma wax waaye waxtaanal ak Ousseynou Diallo ngeen ànd liggéey Mbaye Ndiaye wax na ma ko chef de village yóbbante na ci man wante nag sama premier adjoint di Mamadou Diop moo ñëw gis Ousseynou ci lu ma yegul sax waxtaan ak mom di waxtaan ak mom bama tok ak Ousseynou ñu waxtaan teunk suñu kaddu don ben pour ñu mëna and ànd liggéey pour l'intérêt de notre pays derrière le président Macky Sall développer suñu commune muy commune Sangalkam kon Ousseynou maa ngi lay féliciter Qui décision bon nga jël ni nous avons ki former une équipe une équipe gagnante pour nous continuer de la politique du président Matissal dans cette belle commune ainsi reconfigurée la grande commune de San Je wax ni nous loo xam ne sax man xam naa ko ndax ku nun galab ku fi jaar tey ku fi ñëw bi ñuy ñëw gis nañu ni wax dëgg yàlla dem beeg dikk bi metti na c'est une priorité muy la voirie yi te loolu mën naa leen jox garantie ni grâce au président Macky Sall ak gouvernement am daañu taxaw pour que dem bek dik bi ci voie d'accès yi ñu mën ko régler de manière définitive programme bobu amna président Macky Sall valider nako ministre Mansour Faye moko yor agent agent moko exécuter té ñom ñep ñi ngi ci ce qui veut dire que problème accès digënté Kounoune digënté Kounoune galap digënté cité enseignant ak li wër ko régler

mu def ko asaka rek déedéet bàyyi leen 3 pour cent yi tuuti jël leen 97 pour cent le 23 janvier 2022 pour que la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu am pour cent fii am ko dans toute la commune ñun amul ci xel ñaar quant à notre victoire future.